l'année dernière daaw dañu defoon conférence religieuse mais cette année ñun ñëpp bu ñu toogee dañu xalaat ne que dem ci enseignants yi ci communes fekk si leen si fi ñu nekk waxtaan ak sensibiliser leen waxtaan ak ñoom surtout ci problème yi xew ci enseignement après nag doog leen jox euh, sucre corps, lu ndaw lu néew lu bëri lu néew sans gros sucre par commune pour jappalé leen pour accompagner dañu gën a sentir sen bop ñoom ci parti bi defna lool mo waral tay ñu commencé ko fi ci fort di remercier nak wa wa dalifor parce que nak mobilisation bi rafet na macha allah donc di len wax ne rek loolu moo nekkoon tay jotay bi ñu ñëw fi nak commencé ko fi dinañ ko def dans toutes les communes d'arrondissement yobale fofu tamit commune bu nekk Sangoro Sucre euh lutax ñu lutax ñu def ko parce que buñu boudé conférence religieuse kese do do amna li nga xamanteni ni ngay waxtaanee ak nit ñi ak approche bi ngay am ci ñom ak euh, cette euh, euh, proximité bi ngay am ak ñom doo ko am motax ñu né dañuy dem ci commune yi gën leen xëc gën leen ñaax gën waxtaan ak ñom surtout ci réalisation président de la République par rapport au système éducatif mais ban tank lañu wara taxawé pour que ëlëk enseignants ñi nga xamanteni ñi politiser l'enseignement duñu duñu duñu yak enseignement bi ci lool lañu nek nak ñu waxtaan ak suñuy ñoñ ak suñuy nit pour que ñom tamit ñu mëna gëna mëna vulgariser waxtaan bobu xam nga man enseignante la sama wareef mooy bu heure jotee ma dem liggéey ma dem jàngale ji su ma naree génn war naa mun a ñaan ma génn ci li nga xamante ni lu légal ñu may ma ma dem mais nag boo jógee nga bàyyi sa classe nga bàyyi say xale yi nga xam yi nga war a jox xam-xam te ay doomu jàmbur lañu nga bàyyi leen nga ne leen nga génn nga dem manifester ji ailleurs ba ñu jàpp la fa te nekkul sax seen dëkk ce foo xam ngeen affaire bi il faut que ni ñu xoolaat ko. ñëpp bépp enseignant yu ñu jàpp enseignant ñooñu du ko foofu la ñuy foofu la ñuy jàngale am daay ay enseignant ñi nga xamante ne kooku jàmm gën si kàmbaaw la dëkk mais xam ga fu ñu ko jàppee Mbàkke dafa bàyyi jàmm gën si kàmbaaw bàyyi classe am dem ba Mbàkke di dem di manifester foofu lu tax lu tax lu parce que day de politique c' est pas normal enseignant bu bàyyi classe am bi nga xamante ne yow lii mooy sa liggéey fii lañ lay fayee fii nga sa fii ngay suturaaloo nga bàyyi ko nga ne da ngay dem nga def politique loolu la fa mënta daan rek da koy gar kon da nga jàpp ne ñoom ñooñu yat bi war na a dal. dal ba mu baax bu doon man it mu dal ma te ma nangu ko nit ki da ngay assumer li ngay def da ngay assumer waruñoo jooy waruñoo yuuxu ndaxte ñoom ñoo njëkk a tooñ nañu taxaw xale yi nañu leen jàppale nañ leen conscientiser nañ leen xamal ne que ñii dañuy def politique ñii seen bopp la ñii seen bopp seen bopp la ñu bëgg ñu xale yi parce que ku bëgg xale da ngay def sa liggéey ba pare nga doog a dem defi leneen ñun man dama daan liggéey bi ma nekk à l'opposition dama daan liggéey bu ma wàccee ma doog a dem def politique lu tax ñoom mënuñu ko def léegi nga yor doomu jambour nga ni doo jangal ba pare nga génn dem après nga ni xalé ba topuma xalé ba tamit top la parce que ñu ñew xam nañu né euh, euh maître dafa am ou bien enseignant dafa am baat ci xalé donc nak buñu nangu xalé buñu nangu parents de qui euh, est enseignant yi ñu leen di yakal ëlëk parce que nak ñom ñoy yakulé acte bi madame Balde def tay suñu coordinatrice départementale dafa nek acte bu ñuy saluer ñu kontaan ci trop di ko remercier aussi parce que wax naa ko maire wax na gisagul ben structure tay ji ci parti bi bu joxe soukar d'ailleurs soukar sax dafa rare koor gi ñep xam nañu soukar amul mais mom ak euh, engagement xolam bu rafet une tonne 200 le, la mobiliser pour 12 communes du département bi yëpp lolu vraiment lu reuy la dañ koy ñaanal ni mu ko defee ren at di ñëw mu def lu ëpp li muy def ni ci parti lañ nek té duñ ne lepp baxna buñ ko waxé dañuy na fekk xejna mais. ñàkkul am na lu ñu def mais dañuy gën a ñaaxaat autorités yi locales d'abord ñi nga xamante ne mooy nekk suñu commune muy maire ak euh, maanaam kilifa yi fi nekk ci parti bi ak euh, la coordonnatrice départementale xamal ko carrément suñuy bëgg-bëgg parce que it am na loo xamante ne nii bëgg nañ ko ku nekk tey ci premier étage ñaan nga yàlla yéeg ci kaw donc loolu rek lañ leen di fàttali ñu yóbbu suñu message ci kaw pour ñu mun ñu dégg xëj na ñu satisfaire ñu suñu suñuy doléance